samay rakk nanu muy móotloo muy ñëpp mootloo barki Serigne Touba Mbacke laay wax musuma manqué respect. te gars yi naan way Baboye ngi àndoon ak Modou Lo tey te loolu wax ju amaana mën na ñàkk mais billaahi wallaahi cër gi ma jox barke Serigne Touba Mbacke daf ma jox cër jox ma respect ba fu ma fekk daf muy nuyu ci respect mosoo dégg Modou di wax nit lu ñaaw wala mu wax leen lu ñaaw gis nga nit bu nekkee gaynde la gaynde la Modou Lo lu ko nit mën a waxal du naafiq nit ku dul wax dëgg te dalay am doo ko dégg mukk mu wax lu ñaaw